bismillah asalaamaaleykum ñaanal na leen jàmm yéen ñu nuy topp ci sunu chaîne youtube bi di xalam tv damay benn patient bu ñëw bëgg ben garab bu bëgg jënd euh, tata tata vax bu ko jënd injection la alors que c'est un produit qu'on ne qu'on vend pas sans ordonnance waruñu ko jaay sans ordonnance alors mu ma attends je vais dana damay woote kër ga ñu envoyé ma ordonnance par WhatsApp légui bi mu génné dugg ci wat wonuma batay wonuma ordonnance man ko garab bi kenn du ko jaay sans ordonnance et là il a commencé à crier sur moi il m'a dit que tu es impoli tu es idiot et moi aussi ma ma delloo ko ko je vais te faire regretter ce que tu m'as dit allez-y on va voir après quelques temps après mu génn alors que commissaire commissaire la police parcelle bi temps après Ben camion wàcce taxaw fi agent de police je ne sais pas agent de police Nous avons pharmacie par la force et nous avons pharmacie il ma montré ils m'ont fait sortir par la force casser vitrine yi voilà par la force je suis police alors que dans mon rek garab bi sans ordonnance mu n'importe lu je vais te faire regretter ce que tu m'as dit alors c'est ce qu'on va voir après quel temps après je suis mu police ay agents par la force alors en passage ñu ñu pharmacie vitre bi ak vitre euh, rayon ñu ko la démé dafa civil civil la comme comme comme un patient qui a besoin d'un médicament alors que le médicament qu'il avait besoin on ne le sort pas sans ordonnance donc ni la demain. da nga doon filmé. yaa ngi may topp suba ngoon. mënu leen menacé te defal ndànk. menacé wu ma ko. gis nga je veux que t'es supérieur. ma wax leen ni filature bi ñu nekkee suba ngoon ku dégg bëccëg écoute téléphone yi ñu nekkee nañ ko bàyyi sa sa ñi téléphone ak ni preuve la. da nga ñu filmé. yaa ngi ñuy ah, topp ah, sa moto bi repère nañ ko depuis trois mois. Ah, yow filmé nañ la du benn du ñaar. sa supérieur laay waxal man waxuma ak yow. je n'ai rien yi. waaw Donc voilà, il est interdit de sortir de chez lui. Nous pouvons considérer euh, qu'il est en résidence surveillée. Il veut juste déposer son fils qui est à court à 12h30. Le monde entier va voir ce qui se passe. Voilà, euh, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça le régime de Mais le plus, c'est la police qu'il a aujourd'hui. Parce qu'un ordre, on l'exécute avec intelligence. Euh, aux ordres manifestement illégal. Nul n'est tenu d'obéir. Mais voilà euh, à quoi est réduit aujourd'hui la police. À se mettre au service des choses illégaux, illégales disons. Donc il ne peut pas amener son fils à l'école, interdit de sortir. Donc personne ne peut ni entrer ni sortir du quartier. Donc, il y a ko sénégalais qui qui qui Ousmane Sonko qui voulait amener son fils à l'école et interdit euh, de sortir. Une ruelle barricadée par la police. Nous allons voir où ça va se terminer. Qui est le chef ici Qui est le chef vous il n'y a pas de chef. Donc il est en train de demander qui est le chef qui donne des ordres ici. Je veux dire à tous les Sénégalais, Même, vous, vos enfants sont à l'école aujourd'hui. Moi, mon fils doit aller à l'école, comme vos enfants. Et vous l'empêchez d'aller à l'école. Sur quelle base À tous les Sénégalais souvent qui disent oui, les fils de Sonko ne vont pas dans les manifestations. Hier, des policiers ont photographié ici mes fils, Google Coach TikTok, pour dire que les fils de, de Sonko ne vont pas. Ça, c'est pas l'ordre de la police. On expose ma famille. Et c'est pas méchant, parce que ma famille, elle a fait un choix comme moi. Je dis à tous les Sénégalais, ce que ma, famille vit, bien de famille beaucoup vivre. Nous mon épouse a eu du mal à sortir ce matin pour aller au travail. Lolo, quand les gens parlent de sacrifice, il n'y a pas de famille qui subit plus de sacrifices au Sénégal que la famille de Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, vous tous, c'est les sommes de l'école de Djangi. Macky Sall, domam lek na xaalisu ba toll ni mu toll di mais vous on vous dit le fils de Sonko ne doit pas aller à l'école kon fan ngeen côté Merci. Euh, vous avez vu par vous-même euh, son fils interdit d'aller à l'école, son père interdit de le ramener à l'école, résidence surveillée illégale, illégitime.

qui est debout. Donc, euh, il est obligé de rentrer chez lui. Parce que nous gagne. Et se forcer on Et il n'a pas fermé le droit. Nous sommes fait fitna. Et yalla né képp ñoy yé fitna ndax nit nga nekk ko doo dem doxe say soxla ci loo xam ne teguñu ko fenn au nom de quoi au nom de quoi. am na ay policiers yoo xam ne foofu laay pare ñii moom man sawar naa pour waxal leen ndaxte munuñu def conférence de presse ñeneen yi mën nañ def communiqué mën nañ def conférence de presse am na policiers yoo xam ne nee nañ ma nee nañ ma. diggante 2021 ak tay yenn saay ñu jox leen ay ordre pour ñu daanu ci kaw ay sénégalais ñom ñu né wax dëgg yalla japp nañ né ordre bi c'est un ordre manifestement illégal je crois que ñun ñëpp suñu jàng soriwul waye xam nañ luy ordre manifestement illégal ñun ñëpp a commencé par man suñu jàng soriwul waye on connaît la théorie des baïonnettes intelligentes manam yow homme de tenue yow mi yow yow mi yor fétal sa fétal bi dafa wara and ak xel buñ ñu la yóbbuwee suba tribunal mënoo lay naan ordre la woon déedéet loolu mooy la théorie des baïonnettes intelligentes nekkatul lay depuis Nuremberg depuis jamono Hitler la ñu wax homme de tenue mënatul wax buñ koy jugé ne man dañ ma jox ordre te ñun bu ñu joxee ordre déedéet dañ leen ne da ngay xool yow itam ndax ordre bi c'est un ordre légal ou manifestement illégal léegi policiers yooyu ne te xam ngeen ne policiers yi ñenn ñi dañ doon def loo xam ne du dëgg du yoon yéen xam ko ñun ko ñu dañ leen jox ay ordre yoo xam ne nañ ne baaxul du lañ leen ñu bañ def suspendre seen salaire policiers yi fin du mois di fayeeku ñu ne leen amu leen deuxième mois fayeeku amul payoor ñuy wàcc di yéeg troisième mois am na policiers yoo xam ne nañ seen ñeent nañ finalement biñu yégué di wàcc yéeg di wàcc yéeg di wàcc benn bureau ci police na leen dañ leen sanctionné ndaxte xaw ma da ngeen bañoon def lan joxuñu leen demande d'explication yóbbuwuñu leen conseil de discipline notifié wuñu leen ne dañuy dagg seen salaire ñu war a fay luwaas fay dépense fay facture ñeenti weer juróomi weer policier yooyu kenn fayu leen gouvernement bi nag xam naa ne dossiers, dossier Il faut mu dossier dossier UNO dossier les dossier Total Mais tamit ñi nga nous mënuñu Nous nga nous mënuñu sitting nga nous ne wax dëgg que mënuñu toog des ndaxte bu ñu toogoon fii nit yi tëye Les gémmiñ ñooñu mënuñu sanctionné ndax ay soupçon que gendarme bi informé Guy Marius Sagna yow kay li nga des wax Maroc war na war monter grade loolu mooy ndeyu wax ji ndaxte boo respecté woon yoon xëy na loolu du am ba pare fan la gendarmerie teg gendarme ma informé ak bu ma informé xanaa man nekkuma député gendarme yi xanaa man nekkuma député policier yi xanaa man nekkuma député les militaires les agents d'hygiène les sapeurs pompiers les agents des eaux et forêts lu tax ñu leen di sanctionné doo man du ma nangu ñu leen di sanctionné léegi nak comme général Moussa Fall mo nekkoon ci bop gendarmerie jamono biñuy ñuy sanctionné Sidi sama xel mën nako comprendre du ma ko nangu de waaye sama xel mën nako comprendre comprendre lolu da fay jeex donc Sidi Niang nañ ko bàyyi mu dem wax musuma dajeek mom xawma ma lu muy nirool xawma ma baatam ma dara ci mom xawma ma dara ci mom te général Moussa Fall ak gendarmerie waruñu ko won def jamono ji nga xam président Bassirou Diomaye Diakhar Faye son gouvernement nee dañuy les lanceurs d'alerte mais nous sommes des députés. Nous duñu dévoiler nos sources comme la presse Si nous nag bëgg man ma dévoiler sama source Nous ko def li am solo fait ndax sénégalais Nous avons wax nooteel la am déet bu dee ñu régler ko donc euh, ñenn ci chef ñenn ci chef gendarmerie ñenn ci de police nañu nous seen les yi nañu nous baissons yi gendarmerie yi sonn nañu policiers yi sonn nañu lii laa si bëggoon yokk et ne affaire bi dinañ ko top c'est ça qui me dérange waaw c'est ça qui me dérange parce que Sénégal il ne peut pas y avoir d'étrangers au Sénégal tous les Africains sont chez eux comme en